au calme. damaa jongama ba yàqu. vraiment ëpp na trop belle quoi. ah ëpp na def xale hanche nii def xale poitrine. trop belle quoi. c'est abusé. tout ça dans la diazakilisation. au calme. bul fay sama kii bi mais bàyyi nga def waay ah ma jongama. jonga ma woo dara. damaa jonga ma da nga iñaan. mais buntu bi lan moo taal lamp yi nii. maa ko taal bàyyil bàyyil on est la oto bi yëpp désacralisation désacralisé. <laughs> photo si bopp mën ngeen photo <laughs> yow lay photo photo ma laa ko dama lay snap <laughs> comme que ça tout le monde